bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijna min zulumaati lwahmi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 di leen ziyaare bu baax di leen baalu àq di leen baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan ko mu nangul ñu sunuy jaamu ñaan ko mu jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc ñoo ngi nuyu soppee Al Misbah yi nekk ci biir réew mi nuyu soppe Al Misbah yi nekk bitim réew nuyu sëriñ si ak soxna yi ñoo ngi nuyu ilimaan yi te di leen ziyaare bu baax di nuyu bilaal yi ak mboolem ñi nga xam ne waxtu wii ñi ngi bàyyi xel jotaay bi def ko muy seen jotaay yu wéttal nga xam ne benn ñu yor seeni kurus wala ñu ne ci téere borom bi subhaanahu wa taala wala ñuy waaj jëm ci seen barabi liggéeyukaay wala mu fekk leen sax ci yoon wi ala kulli xaalin ñi ngi ànd ak ñun jotaay bi yal na gën a yàgg yal na gën a sax yal nañ ci dajee ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala ñoo ngi ndokkeel bu baax jàngalekat yi sëñ Maodo Faye nee na damay wax rek jàng jàngkati alxuraan yi ak ñi koy jàngale waaye daa mel ni bunt boobu mën naa gën a yaatu kon ma wax kon ne ñi ngi ndokkeel bu baax jàngalekat yépp waaye di beral nag ak ndokkeel jàngkati alxuraan yi ak jàngalekati alxuraan yi ndax xayrukum man taallama alquraana wa allamahu waaye xam-xam moom yépp am njariñ ab jàngalekat daa am wàccuwaay ci société bi ndax boroom xam-xam la waaye yëmu ca muy xamle te ki xamal nit kooka daa taxaw ngir defar ko daa taxaw ngir gindi ko ndax looloo nekkoon njariñul xam-xam bu xam duggee ci nit ba noppi jëriñu ko rek amalatu ko njariñ mag ñi dañ koy waxe ne moom mbaam mu sëf ay téere ñooyam njariñul xam mooy xam-xam ba jariñ nit ki njariñul xam-xam ba mooy xam-xam ba yóbbu nit ki ci ak nite moo tax ñiy jàngale wala boroom xam-xam bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën innama yaxsa llaha min ibadihi al ulama ñi gën a bàyyi xel borom bi subhaanahu wa taala gën koo ragal borom bi subhaanahu wa taala nee na ñooñ ñooy borom xam-xam yi ndax tey kii gëstu ci wàllu science bu xoolee yenn yi setantal ko na muy amee te xam ne loolu jékkiwut jékki am gu naturel waaye bi mu amee ba noppi am na lu ko amal lu ne ca ginnaawam loola lu mu mu di ko xool di ko xool da koy delloo ci lum mën a tuta làmb di ko daj lum xelam mënatuta a xalaam ba peeg ko waaye mu yëg ne looloo ngi fi loola nag wala kooka mooy borom bi subhaanahu wa taala ki góorlu nag ba yu xamtiku loolu daa bokk ci ki nga xam ne màggal ko war na moom la woykat ba waxoon ne xumlil muallimi wa fihi tabjila kaadal muallimu an yakuna rasula xaw tuuti kon rek mu doon ab yonent ci yow am ko wax ne sax danaa jiital sama àqi sama maître bi may jàngal ci sama àqi ñaari waajur ñu ne ko lu tax mu ne sama waajur bi moom bi may yar sama yaram wi la doon defar moom la doon toppatoo moom la doon bañ ma làggi ba jural ma ay laago moom la doon bañ ma gaañu moom la doon bañ ma loru waaye jàngalekat bi moom sama ruugi la doon defar sama ruugi lay lay yar wa mu ustaasi ala xaqi waalidi loolu la wax loolu aw déggin la moo tax sax am na ñoo xam ne sëriñ bi loolu la daan jariñ baatu sëriñ baatu sëriñ ci wolof boo ko yaatalee mooy doon saweekatu njariñ saweekatu njariñ maanaam ki nga xam ne moo lay jàngal ki nga xam ne moo lay jàngal Oustaz Alioune Sall ne ma ñu abreese ko daal di wax sëriñ ndax mu gën a gàtt nga xam ne boo ko xoolee jàng ci moom bu waxee jàngal la bu jëfee jàngal la noonu la ko mag ñi comprendre woon moo taxoon mu mujj doonoon loo xam ne amal na leen njariñ lool ñi nga xam ne ñooy taxawe loolu it bokk ci ñi nga xam ne mat nañoo bàyyi xel mat nañoo fonk moo tax bu njëkk aji jàng da daan wekk ab jàng katam ki koy jàngal mooy sëb sëriñ nga xam ne ki lay jàngal woy jur la ki lay jàngal yonent la ci yow ki lay jàngal kilifa la ci yow ki lay jàngal sa buur la bu toogee ci kaw nga toog ci suuf ndax xam-xam baa tax ndax dañoo wax ne baraada kaas bi muy xelli da koy féete suuf waaye boo bu ko féetee kaw ba noppi mu bëgg baraada bi xellil ko du sotti moo tax kii root day day taatan day dékk day dékk ñu sottil ko ñoo ngi nuyu borom xam-xam yépp kon di nuyu jàngalekat yeeg jàngkat yépp waaye di beral am nuyoo jàngkati alxuraan yi maa ngi doon waxtaanee li nga xamante ne mooy na ñaan borom bi subxanahu wa taala mu defal ñu ko. te sakina mooy ak dal yal nañu ko yàlla defal fi dunya yal nañu ko yàlla defal fil aaxira ndax moom sakina moom ku ko am ñàkkatoo dara te jamono jii loolu daa bokk ci li nga xam ne dafa jafe lool te mën ngaa wax ne mooy ak dal goo xam ne nit ki da koy am mu dox digganteem ak jaaxle dox digganteem ak tiit dox digganteem ak yi nga xam ne moo ci aju yépp bi may jeexal maa ngi doon jàng aaya joo xam ne borom bi subhaanahu wa taala ma ngi koy wax ne moom yàlla mooy wàccee ak dal ci xolub ñi nga xam ne ñoo ko gëm bu ko defee dal googu yokku leen li nga xam ne mooy ak ngëm daal di wax mooy moom yàlla kàttanam ak li nga xam ne moom la am moom laa doon wax ci soldaar si nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala am yépp jeneen aaya ju ci topp nekk ca suratul fatxi ndax day saar woo xamante ne ñetti yoon ay aayaam ñëw na ci yoo xam ne borom bi da cay tudd baatu sakkiina gi may waxtaane te mooy ak dal léeg mu dem foo xam ne day am liif ak laam mu am foo xam ne du ko am aaya ji ma jàng léegi am na ko am na foo xam ne borom bee ngi wax naan laqad radiyallahu anil muminina id yubaayicuunaka taxta shajarati fa alima maa fi quluubihim fa anzala fa anzala fa anzala sakinata alayhim wa asaabahum fat an xariba borom bi subhaanahu wa taala nee na kontaan na ci jullit ñi yàllaa ko wax nee na kontaan naa ci ñoom gërëm naa leen gërëm na ña nga xamante ne jaayante nañoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca ron garab ga jaayante mooy yonent bi tàllal ab loxoom ñu ñëw jaayante maanaam jël engagement jël engagement manees na koo defe noonu manees na koo def sax waaye ab jullit day jaayante am mbooloo bu ñu àndee jëm ci menn mbir jaayante ne danañ def nangam ba noppi bañ a wor daa bokk ci li nga xam ne moo koy dëggal moo koy dëgëral moo tax borom bi subhaanahu wa taala tagg koo xam ne bu àndee ki nawleem dugg ci mbir du ca génn du wor du wor léegi nag doo xam sax e, kuréel gi ñi ci bokk ak ñi ci bokkut da nga gis ak kuréel goo xamante ne nit dana ca nekk waaye jëmm ma fa nekk waaye jeneen jëmm moom bu doon ñaar la ma ngi ca jeneen nga xam ne daa ngarale lim nëbb ñi ma àndal moo ëpp mu àndal liñ yëg ci moom moo ëpp mu àndal liñ yëg ci moom bu dee ci politique bi mën naa am koo xam ne danaa euh, da koy boole ci opposition bi waaye mën naa am bu ngoonee mu reere ca ña muy opposé waaw mu reere ca geneen làng ga ca des yu xaadiuuna allaha wa rasula rek waaye buñ ñëwee ci ñii wax ne ci ñii laa bokk buñ demee ca ñeene gaa yi dañ leen di nax xanaa sama gaa yi gaa yi ah gaa yi da ngay waaru de daal di mel ne du woon ñoom yàlla bëggut jullit bu mel noonu yàlla bëggut jullit bu mel noonu nit ku nit ku nit nit ku honnête sax wërta mel noonu nit ku honnête wërta mel noonu l'islam door a ñëw nag tegu ci kawam tere ko loolu moo tax gaa yi nga xam ne dañoo jaayante yonent bi alayhi salaatu wasalaam te loolu doonul woon lu yomb doonul woon lu yomb ndax borom bi subhaanahu wa taala commerce am dafa diis àjjana lim koy jaayee dafa diis moo tax inna allaha stara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna waaw Euh, nee na jaay na jullit yi na jënd nañ ko lan lañ ko jëndee mu ne seeni alal ak seen bakkan seen alal lañ bàyyi màkka ñëw ma dina seen alal moo dut fekke procès bi lislaam te demu ca ba jeex seen bakkan itam ñu joxe ko am na ñoo xam ne dañ leen a rey man ngaa jël ca jigéen ña waa àll yaasir ya man ngaa jël ca góor ña boo yéegee ca kaw ba agsi ca ña nga xam ne dañ leen a rey ñëpp ñoom Seydina Hamza ñoom Mus'ab ak ñu baree bari ñoo xamante ne dañ leen a rey seeni bakkan lañ joxe ndax taxawal lislaam ji ñu nekk tey lislaam ji nga xam ne tey boo ma nee nitu diine nga ma tàmbalee nguuru diine jooju ña ko taxawal am na ci ñoo xamante ne dund nañ ba faatu seen kër mosuñu faa mën a am añ ak reer ak ndékki waaw te ci ñi gënoon ci ñuy dox ci kaw suuf lañ bokk borom bi nag nee na biñ jaayantee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax booba jaaxle am na booba jaaxle am na bëgg nañoo dugg màkka màkka mbir ya mbir ya jafe na yonent bi yónni na Seydina Ousmane ibnu ibnu Affan jot na xibaar yu koy wax ne Ousmane ma nga yónni woon waa màkka rey nañ ko mbooloo mi war nañoo mën a tàqalikoo ndax xalaat yi day wuute waaw te loolu léeg mu am ci mpénc xam nga wax sa xalaat du fépp la am am na foo xam ne ñëpp am xalaat waaye xalaat bu nekk des koy laaj bañ jox la ko léeg-léeg kilifa jël dogal boo xam ne ci jamono jooju jëfe dogal baa gën toog fa di joxe xalaat waaw jëfe dogal ba mooy gën toog fa di joxe xalaat ñun sax loolu daa bokk ci li ñu tardeel mooy mooy mooy communiquer maanaam xam na ma ko waxeeti mooy théorie bu bari bi di wax rek day mujj yàgg dootoo jëfati lu bari borom bi subhaanahu wa nee na ma wàccee ci seen xol ya ak dal waaw yàlla nee na maa xam la nekk ci seen xol ya waaye ca laa wàccee ak dal waaw dëgëral leen defal leen ubbi gu jege jege jege ndeke takku doon benn ak déggal sa kilifa day tax nga amuk dal waaye li ma ci bëgg a wax mooy asakina boroom bi subhaanahu wa bi muy wax xéewal gi mu leen defal dafa wax ne maa wàccee ci ñoom li nga xam ne mooy ak dal am na fu muy wax naan id jaala alladina kafaru fi qulubihim alxamiya xamiyatal jaahiliyati fa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminina wa aldamahum kalimata taqwa wa kaanu axaqu biha wa bi kulli cheyin alima borom bi subhaanahu wa nee na moo def ci xolu ñi nga xam ne dañ koo weddi ñu doon ñoo xam ne dañoo mën a jóg ndax parparloo waaw xamiyatal jaahiliya waaw di nga xam ne mën nañoo xeex ba ne làcc joxe seen bakkan waaye yàlla du tax yàlla du tax fi nga bokk rek ay tax fi nga bokk suñ famille lañ tooñ kon man damay jóg waaw suñ famille lañ tooñ kon man damay jóg suñ bisub salaata bi daal ñoo ko moom suñu feet la woon ñu nar ñu koo xañ jaral dama joxe suñ bakkan waaye yàlla moom du leen jaral mukk ak jóg du leen jaral dara waaw léeg-léeg nit di sonn ci mbir waaye fekk askana ko tax di sonn waaye yàlla taxu koy sonn yàlla bëggul loolu daf bëgg rek yooyu yëpp doon ay jumtukaay ngir xamante ba mën a liggéey waaye yàlla tax ngay yëngutu yàlla tax ngay dal nee na nag ca xoli gaaya jullit ña ak dal maa ko defal itam yonent bi alayhi salaatu wasalaam defal ko ñi ko gëm defal ko ñi ko gëm yal nañu ko yàlla boole defal mbokk yi ak dal am na solo lool waxoon naa la ne sakkiina ci aaya yi ñëw am na ci boo xam ne yéefar dañoo topp yonent bi ba ca xunti ma waaye àndandoom ba di seydina abu bakrin siddiq radiallahu anhu ba mu tiitee is yaquulaa li laa taxsan laa taxsan inna allaha loolu la ko wax wala boog is yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maana waaw dalal waaye fa anzala allahu kon ki nga xam ne tey dafa tiit nga xamante ne moo xam tiitaange ju man di doon la da euh, fër-fër jooju muy nekkee am na koo xamante ne ci jaaxle googu la nekk aw fitam di tëf-tëfi bu amee ak dal ak dal day yokk personnalité nit ak dal day yokk personnalité nit moo tax nit fi mu ne balaa ŋaang gémmiñam bala ngaa ñeppi sa gémmiñ gi di wax war nga koo xalaat xalaataat ko xool ko xoolaat ko ndax li ngay wax jar na ko su fekkee li ngay wax kat wax kook bàyyi koo yem képp bu boobaa bàyyi koo gën mhm. bu dee li ngay wax nii nga wax ko ak nga bàyyi ko ñoo yem ci ñàkk solo gum ñàkk solo nga noppi bañati koo wax moo gën noppi bu fekkee li ngay wax nag yàq dong lay indi far moom wax ko daa ëpp def far wax ko daa ëpp a def musiba lay doon su fekkee boo waxee mu jariñ nag te fi ngay waxee ñu danañ la fa dégloo ba njariñ la man faa am bu boobaa yow wax farata la ci yow wa xuulu linnaasi na bu boobaa wax farata la ci yow na nga wax lu rafet na nga wax lu rafet waaw na nga wax lu rafet bu ko defee jàmm daal di tàmbalee am ci pénc ma loolu ci dal la bokk ci dal ak dal bokkut ak yambare xam nga ñun léeg ñu boole yu bokkut yàlla bëggut ko yambare bëggut góor gu yot yoti bëggut góor gu yor yoti boo yoree say doom ci kër gi sax am ci ku yambare di di yokk ko ki noonu nga xam ne buy lekk boo ko séenee yërëm ko mel ni ku si buru wala ku bëggu dara ci li muy def soññ ko waaw dee ko soññi dafa bëgg ku njaxlaf waaye daa bëgg ko dal bëggut ku rambax bëggut ku rambax ku rambax bu dee xale bu yàkkamti ci ay wax wala mag mu yàkkamti ciy wax mooy tax muy wax luñ ko laa laajut mooy wax mooy tax mu wax luñ ko laa laajut nga xam ne bu xale yépp teewoon ngay wax ak kenn ci ñoom boo laaj laajtee mu boo nee boo nee Muhammad ana nangam euh, Muhammad an sa tante mi ngi ci biir balaa tontu rek boo moytuwut Mariama moo naan lawet ne ko ne sama tàntaan ci biir yaay sama te yow laajoo ko bañ nga ko ba laaj bi da ngaa adressé ki ngay laaj jaar ci aw turam boo dee yar na ko wax ne ko kan moo la wax nga tontu ba mu yëg ne lu yoonam nekkut ci ay wax yoonam du ca nekk waaw lu yoonam nekkut ci ay wax yoonam du ca nekk mooy tax du ko màggaale mooy tax du ko màggaale day ndeke balaa nit kee tontu daa war a bàyyi bañ laaj ko su fekkoon da ngaa ñëw fekk mbooloo mi toog nga posé benn question ci biir mbooloo mi rek mën ngaa tontu waaye gannaaw da ngaa tudd turu nit daal di koy posé ab question même yow boo ko xamee noppil waaw même yow boo ko xamee noppil bul ne la wet tontu ci kanamam bokkut ci ab yar yi may wax nii nag ci jikko la bokk te ci jikko la ñuy waxtaane di waxtaane ak dal bu boobaa loolu dal la ci bind dal la ci bind te lu am solo la waaw lu am solo la te lu mat a bàyyi xel la mooy tax ngay gis koo xamante ne balaa bu nit doon wax dara sax du ko may mu àggale ndax da koy jaay ne maa la ko gën a xam maa la ko gën a xam balaa daaneel mu ne ko tër dem toog rambax rambax rambax yanja yanja yanja yanja ba mu ëpp baaxut waaw góor daal mën naa njaxlaf waaye bokkut ak ñàkk dal waaw da dal ci ay wax dal ci ay jëf dal ci ay wax dal ci ay jëf waaw rambax baaxut am na koo xam ne bu doon dox rek ni muy karaas karaasee tànk yi taxut ñuy waxu njaxlaf da karaaf karaaf nga xam ne fi nga toog nii ñe ca mbedd ma ñëpp yëg nañ ne yaa ngi ñëw boo dee wax boo nee ràllet ñëpp tiit tàmbali koo jàng nga tàmbali koo jéem a bàyyi bokkut ci jikko yu baax yi bu ko defee nga tàmbalee nite moo tax ak dal am na solo bi ma noppee ci aaya yooyu xadis bi may njëkk a indi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko seydina abi hurayra radiallahu anhu nettali ko jële ko ci moom nee na dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naan ida uqimati salaatu falaa taatuuhaa tafawna wa aatuuhaa tamshuuna alaykum sakina fa maa adraktum fa sallu wa maa faatakum fa atimmu abi hurayra nee na dégg na ku baax ka yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam muy wax naan buñ taxawalatee julli maanaam koo xam ne day dem di julli ji dégg ñu taxawal kàbbar yonent bi nee na bul daw xoolal ni mu bëgg nit ku dal nit ku dal ak nit ku am personnalité bu fekkoon nit day samp xel di daw julli moom mooy li gën a farata ci li nit kiy def kon ci la war a sampewu xelam waaye nee na bul daw nanga dox na nga dox dox bu dal waaw na nga dox dox bu dal ak sa dignité waaye waaye bi ngay julli ji yàlla ngay julli li kon léegi ci lan nga war a jëmati bam jaral la nag nga samp saw xel di ñàll ñali suuf si tasaaroo ngay xam nga tell tell tell tell yàlla nee na yonent bi nee na booy julli ji sax ñu kàbbar nga jëm ci jàkka ja nee na bul daw falaata falaata falaa tatuuhaa na waaye wa tuuhaa tamfuuna na nga dox na nga dox aleykumu sakina nee na na nga na dal dafa bëgg jullit bu am personnalité waaw na nga ne tekk waaw di dox man ngaa waaxu jéego yu dëgër ba ku la gis xam ne li ngay dox farata la waaye du tax nag nga wogosu waaw bul wog bul wog sa mbub mi mukk yaa ëpp loolu yaa ëpp loolu bul ko wog yàllaa na soxla ci julli gi waaye neen la dikkeel ni ma la bindee ndax daa bokk ci yow dikkeel ni ma la bindee ndax daa bokk ci yow ndeysaan loolu ci ci ak ci ci yëfi nit la bokk ci yëfi nit la bokk yaa gën a léeg-léeg léeg nga ñëw summi say dàll naaj wi di la lakk foo xam ne naaj wi lay lakk jëriñut jëriñut jëriñut jëriñut yàlla dara yàlla moom def tànki neen dëgg yi jam jëriñu ko dara jëriñu ko tus ma wax la ko tey waaw jëriñut itam bu fekkent ne ab barab la tey ka fa tëdd naaj wi lay lakk du ko jariñ dara te yow mën na laa lor te yow man na laa lor te yaa ngi dund te yaa ngi koy yëg te yàlla bëggul nit ku loor boppam noonu te yàlla xam na ne bu fekkee léeg nga koy màggali nit sax kooku bëggul loolu loolu koo kooku bëggul loolu kon doonal ki nga doon waaw lu aju ci respe nag buy dox sa digganteeg nit ci jëflante moo xam nuyu nit sëgg la moo xam nuyu nit summi sa mbaxana la moo xam mu mu mu toog ci kaw nga toog ci suuf moo xam loolu yëpp ñu la ci forcé wul rek nga def ko sa coobaree bopp ndax terale ko nit yàlla nee na rafet na waaw rafet na defal defal parce que rafet na yow la yow loolu yow yaa ko sentir yëg ne waa ji war nga koo terale nii ndax loola yaa xam bu boobaa baax na waaye boo ko bëggee forcer nit wala nit def ko ndaxu doyadi lislaam bëggut ko doyadi yàlla bëggut ko doyadi yonent saa sallam bu sañoon benn jullit du doyadi benn jullit du ñàkk fayda waaw benn jullit doyadi kenn du ñàkk fayda bul topp ci ginnaaw nit mukk di ñàkk fayda ba mu yóbbee la ngay yappar yappari ba fàtte sa bopp nit a ëpp loolu nit a ëpp loolu moo tax l'islam favoriser liggéey bëgg nit di nangoo liggéey ku toll ci liggéey nga liggéey moo tax mag ñi daan yar nit ci doylu ndax ndax boo liggéeyut am man na laa am lu la doy mën naa bañ a demee noonu mhm. c'est-à-dire bu fekkente ne da jàpp ci nit ki ne li lay jariñ moo la koy jox boo moytuwul nga soppali ko doonub jaamam te doo ko yëg te yàlla bëggut nit di jaamub nit ne moroomam yéen a bokk buur ndax bi nga xëyee da nga ne ashadu an laa ilaha illa allah kookaay buur bi yéen ñaara bokk benn sang li mu bëgg mooy nga doonum nawleem boo dooneem nawleem nag la la koy may mooy nga nga wékk li lay dundal ci sa liggéey mhm. lenn lu la ca dikkal nga sant ko mooy li xew léegi ci penc mi di nga gis koo xam ne mën naa xëy suba taxaw topp nit nekk ci xew ami wit kenn du mën a wax lu am njariñ kenn du noppalu te yow taggaate ngay wax léeg li ngay tagg nit ki yow mi koy wax xam nga ne du dëgg moom mi ngi koy tagg xam na ne du dëgg ñi lay dégg xam nañ ne du dëgg waaye nag boo ko defut du la jox boo ko defut du la ko jox nga di ko def nag te doo ci boole ak dal far da nga koy boole ak rambax ak téll téll joo xamante ne moom sax bu lay jox bu la waroon a may cinquante mille du ko yëkkati jox la waaye cinquante mille yi boo moytuwul pare mille francs lay doon pare mille francs lay doon mu koy benn bennal loolu mooy baatare loolu la ñuy wax baatare léegi kay jël ko joxandoo ko waa benn yoon bu ko defee nga nopp ko nga noppalu noppal ko doo fa nekk di ko benn bennal di joxe par benn billet mu tàllal ngay joxe ñu naan mi ngi koy baataree mi ngi koy baataree ba lu ci ëpp euh, bu fekkente ne waajee nga ko doon joxe te joxe baax na waaye baatare googa mën na koo yàq ndax ngistal mën na cee dugg te ngistal dafa sew waaw te lu ngistal dugg jëf jooju yàqu boo ko ne woon jël ko jox ko ko nga noppal sa bopp yow ci benn bennal bi noppal ko moom it ci tàllal gi <laughs> noppal ko moom it ci tàllal gi ala kulli haal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi dañ ciy dégg bëgg na nit ku nite bëgg na nit ku nite nee na bu ñu taxawalatee julli fala tatuha tafaw na waaw bul julli ji jëm ci jàkka ja samp saw xel waaye nanga dox maa ngi lay dénk ne nanga dal na nga ànd ko dal muy asakina mu ne boo ñëwee ah la nga fekk ci julli ga la nga leen dab nga ànd ak ñoom nga ànd ak ñoom buñ sëlmalee lañ la rawoon nga mottali waaw jàmm ne ñooy xoolal moomu njàngale rek nee na boo ñëwee fekk julli ga loo fa fekkee rek àndal ak ñoom bu julli ga jeexee la faatoon nga indi ko waaw fa maa adraktum fa sallu wa maa faatakum fa atimmu àdduna noon dong la àdduna kenn mënta fekkee lépp kenn mënta fekkee lépp xew yi donc ku bëgg xew wu ne nga dem ca boo moytuwut Euh, mbir yi du sotti yàlla doo nga mën a nekk fépp nit day mën a wuute waaye bëgg xam li xew ci kër gi lépp moo lay tax a dañ kumpa moo tax doo nelaw bëccëg moo tax yaa ngi romb buntu jàmbur yi yaa ngi déglu téléphone yi groupe whatsapp yi yëpp nga bëgg a dugg réseaux sociaux yi yëpp nga bëgg a xool day mujj jàgg dootoo nekkati teew dootoo nekk waaw da ngay yëg ne day am looy fekke ànd ca la la raw la nga ca mën a indi nga indi ko yàlla nee na man kontaan naa ci yow moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax naan ayuhan naasu assakinata assakina waaw mel ne mi ngi ñuy dénk li nga xam ne mooy ak dal dañu dénk li nga xam ne mooy ak dal xadis boobu eh, imaam abu hurayra radiallahu anhu jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam imaam buxaari muslim yépp indi ko bi nee bu ñu julli nañ ñëw ci dal rambax-rambaxi waaw nee na lala dab ci lala lala lala raw ci julli ga buñ sëlmalee nga fay ko la nga ca fekkee ànd ko ak ña nga xam ne ñoo doon julli waaw na ñu yàlla boole nangul defal ñu li nga xam ne mooy ak dal benn xadis ngi noonu ci ahadis yi nga xamante ne danañ ci ñëw ci suñ bind yi ci kanam ñaan borom bi subxanahu wa taala mu may ñu ñu dugg ci weeru koor wi ak jàmm ñaan ko mu nangul ñu sunu koor te nangul leen ñaan ko mu may ñu kàttan guñ ko woore xam naa koor moom ci Sénégal dugg ci ñun ñëpp duggandoo ci bu amee événement bu rëy lay doon waaye dugg ci tàqalikoo daa mel ne topp nañu te kenn xamatut fu ñuy bàyyee ala kulli xaalin jërul werante wuute ci diine yàgg naa am lool lii liitim am na ci lool masala wuute la te mooy eh, li ñuy wax ixtilaaful mataalix ak tawxidul mataalix am loo xam ne nag du masala wuute waaye réew mu ñàkk organiser la suñ jëfi bopp la lu ci mën di xew daal la nga tànn ba mu doy la na nga ca nekk te yëg ne yaa ngi jëm ci jaamu yàlla bu ko tàmbulee werante ak noonoo ak sa mbokkum julit jeexale ko werante ak noonoo ak sa mbokkum julit loolu boobaa seytaane dana ci amu yoon te moom lu mu dugg yàqu ko yàlla nañu yàlla musal ci moom ñoo ngi leen di jaajëfal baax di leen baalu ak ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal di siyaare bu baax a baax tey ndokkeel imaam alxaaji oustaz Alioune sàll defe naa tey la conseil bi di jeex bu ëllëgee jàmm ñu tàmbali koo déggaat ci waxtaani fajar yi ñaan borom bi subhaanahu wa mu sàmm ko ndokkeelaat ko baax a baax ci lim dellu siwaat ci jàmm allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama nihaaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu